salaamaaleykum sama gars yi maa ngi lay siyaar ka si nekk man di la jox waaye yéen opposition bi <laughs> opposition bi damaa wax opposition bi xanaa gisuleen lii DGE la def ah des mi nga xamante ne moom moo yor wàllu élection yi direction général des des des élections yéen ñu bokk si élection yi seen xel dal na si DGE lu moo def nii <laughs> ah wala da ngeen yaakaar ne mbir mi Ousmane Sonko la rek DGE mi nga xamante ne ginnaaw juge bi joxee ndigal pour ñu dugal Ousmane Sonko delloo ko si liste électorale yi nakate daaf def na ko depuis le vingt si li mu jot a wax ba pare Sénat ñëw na dëggal ko ne nañ ko jox fiche de parrainage waaw loolu yëpp DG naa non non xin di di di resu ah, te moom leen dénk élection yi seen xel dal na yéen opposition yi ma ne naa seen xel dal na opposition bi soi-disant opposition bi c'est laa wax loo ngeen def bloc loo ngeen def bloc jéem a xeex loolu waaye déedéet parce que dañu yaakaar ne Ousmane Sonko la illaa yéen a goroy di illaa yéen a goroy di te doof yéen ña ñu ëpp si yéen nekku leen ay nit di xen doof lii nii DGE mi ngeen di seetaan ni mu la salfaañe affaire yi moytu leen mu dem élection mu gën a ñaaw de mu jël résultat yëpp tëxañ yëpp jox jox jox benn bokk yaakaar mu jël ndam li seen xel dal na daal elekon ngeen génn intervenir ah parce que moo yor élection yi dèjà lu muy def rek jubul tegu ko fen waaye heureusement Sénat dañ sukkandikoo si article six bi ah yoon may naka moom moom mu jox ko fii san waaw ñun comme te dugg na si biir rek comme te daaf nee ne Sonko dugal nañ ko si liste bi rek baax na <laughs> dégg ngeen voilà yéen téye lañ ko fii rek yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen opposition bu ñàkk fayda bi xamante ne tekkiwu leen dara waaw Ousmane Sonko rek moo la fi góor fii moo fi am fit ndaxte moo laan jàmmaloo Macky Sall yéen yi fi ngeen def affaire tapet la affaire ñàkk fayda ngeen yaakaar di ngeen am dara xaar leen yéen fi mu nekk seen politique moo jeex c'est fini waaw